boo ñëwee ba fii nag mu benn kàddu rek waxuma ci te ñu foog ne leneen la ndax dama bokk ci ñi invité journaliste yi ak ñi nga xam ne ñu fi toog conférence de presse la point de presse la boo xam ne ne Ablaye Seydou Sow ak Farba Ngom mais moom rek doyoon na ci sët ak barke ndax déglu ngeen kàddu yi ñu fi wax macha allah waaw donc merci Abdoulaye mais mbooloo mi ay gërëm journaliste yëpp. ñuy ñëw ak ñu ñuy seetaan man euh, am na loo xam ne ne dama bëgg wax ak yéen il faut ñu waxante dëkk réew mi ñu ñëpp ñoo ko bokk opposition pouvoir réew mi Sénégal yëpp a ko bokk ku mu mënta rek. tant que sénégalais wala sénégalaise ci nga bokk mais lu tax ñuy bëgg rek ku mel ne Ousmane Sonko saa yu yëkkatee kàddu mu waxul loo xam ne du dëgg parce que dama tàmm déglu ci ay kàddam wala ci ñi ko jegee yenn saa yi saa yi ma ñëwee man xam nga damay indi ay affaire di ci yi wax te du xam fan laa ko jëlee bi ci njëkk rek may groupe de whatsapp bi nga xam ne da koy coordonné mooy administrateur bi génn na ci ñu bari loolu xamul fan laa ko yëg génn na ci ñu bari ñu nekk conférence des leaders parce que dañ ko doon wax dëgg bëggul ku koy wax dëgg problème mu dictateur yaa ngi koy commencé jëf di ko doxal ci moment bi nga xam ne na opposition nga nekk nekk chef de parti kon nag yaakaar naa ci li nga xam ne ne yaa ngi koy ut boo ko doonee musiba la ci réew mi mais Sénégal yi xale yi laay waxal déglu ngeen conf euh, point de presse bi mu doon def dafa ne xale yu préparer leen mobiliser leen mooy lan kaay la ñu dem xeex lan la ñuy xeex lan moo fi ne ba nga xam ne dañ koy xeex mais loolu laa jël man loolu moo ma jaaxal di mobiliser di préparer loo xale yi di dugg ci seen moyen di wax ak ñoom il faut ñu delloo ci seen xel Sénégal benn bopp la kenn mu cest à kenn ku ci dox. bay ut réew mi sénégalais yi nga koy utal mais yaakaar naa du sa bopp ci sama yaakaar kon nag lu tax ngay yëngal xale yi yi di leen préparer loo ci loo xam ne ne mbirum Sénégal la wax dëgg yàlla du loolu kaay la ñu dem xeex et puis nga bëgg a jël appel di woo xale sénégalais yëpp allez-y se mobiliser se préparer ah Ousmane Sonko ñu convoqué ko justice loolu du problème mais la nga xam ne du problème ci sama yaakaar man le ministre Abdoulaye Seydou Sow wax na ko. am nga problème justice xam nga ne justice mooy condamné am ñeneen nit ñi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi justice tere na leen ñu nekk candidat yow xamoon lan la la justice di tere d' abord ndax di nga nekk candidat parce que en 2019 Ousmane Sonko a été candidat jël troisième aux élections présidentielles loolu droit am la est ce que jamono yooyu nit yëkkati na fii kàddu wax lii wala laa ndax amutoon même bu doon day lakkatu fenn sax feeñu toon boobu amutoon benn problème ak mais lii nag fu ñu toll nii mu am problème ak justice te problème justice yi amul problème ak état mu leer amul benn problème ak état amul problème ak état beneen sénégalais boo xam ne ne citoyen la comme moom moo jël plainte am déposé ko au niveau quand même de la justice loolu daa war a leer Sénégal askan yëpp xam même ñi ànd ak moom dañu war a appeler à la justice mu leeral mbir mi pour que candidature am mu ne légitime loolu yaakaar naa ko. kon nag loolu mu ngi noonu mu nekk mbir moo xam ne Sénégal yëpp ñu ngi koy xaar.